thank you mbokk yi di rafetlu bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ak seeg yéen ci xibaaru digg bëccëg bi bokk na ci li ci gën a fës leeral yi nga xamante ni jorit ñu dénk walla ko yoon indi na ko euh, ci mbiri Khalifa Sall professeur Ismaïla Madior Fall euh, di dalal xel yi nee na du benn yoon boo xamante ni na mën nañoo salfaañe ak ak yelleefu maire Ndakaaru euh, àdduna it ci scandale audience fictive yi des na ca dikk léegi ci kon kàddu yi nga xamante ni xëy na ko ci biral ci ndaje ñeeloon wàllu àq ak yelleef ak nu ñu mën a def euh, ba renforcer euh, lu ni mel euh, leneen ci wàllum njàng beneen jëwrin bi ñu yor bi yor wàllu woowu ak waajuru ndongo yi ñoom xëy nañu kon tam ndaje wax ci mbiru yavu Selim jàpp nañ ni saafara daal bëgg nañu ko am ci école boobu fexe ba du tëj ñu joxante nag ayu bés laata njàng mi di fa dooraat waaye laata loolu ministre bi kon ni ñu ko gisee dana amalum ndaje xool saafara ñu ca tàmbali woon a wut démb ndax loole loolee danañu ko mën a sottal jubboo ci am déet situation boobu danañu ci àddu ak président union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal Abdoulaye Fane moom la ñuy dalal mooy gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi monsieur Fane maa ngi lay nuyu di rafetlu teewaay bi. ñu lay nuyu di la ziar soxna ngoone ajaratu ngoone yàlla yàlla na ko di kontaan ci li ngeen ñu prier tey ci bés bi ñu wax ci wàllu njàngale mi ci réew mi. kon ci kanam tuuti danañu amal euh, waxtaan wu ni mel danañu demit ba ca Koungheul foofee askan wa nee nañu sonn nañu euh, huit dafa mel ni daal dañu leen a fàtte gisuñu benn ko coppite ca seen gox boobee ba ñu defee département euh, Koungheul atum 2006 ba tey jii nee nañu it ña ngay laajub commissariat ay yoon waaye it trésor public benn lycée cot moo nekk ca diwaan ba situation yooyu yëpp nag bu ñu ko dajalee moo merloo askan wa ba ñu daal di wàcc ci mbedd mi situation diplomatique diggante Sénégal ak Qatar. des na ci àddu it amut benn kon jalgati wala euh, jaxasoogu ca am loole nag euh, ki ko xamle mooy Alpha Wali euh, Diallo nee nañu kàddu nga xamante ni ministre Katari bi yëkkati na ko loole mënta yàq dara ci diggante ñaari réew yi ponk nga kon mbokk yi ni ñu yaatal xibaar yi. koy dellu nuyu leen rafetlu ànd bi ak euh, télévision Futur Média jawrin ju bees ñu dénk euh, wàllug euh, yoon moom ministre de la justice garde des sceaux na ci mbiri Khalifa Babacar Sall professeur Ismaïla Madior Fall dalal xel yi moom daal jàpp na ni ci wàllu àq ak ci lu soxal merub Ndakaaru kenn du ca indi benn jalgati wala di ko salfaañe kon jarul gaañi di ci am ak ci scandale audience fictive initiative euh, yi moom ministre bi it euh, daal di na ci wax xam le ni yàqut liggéey bi yoon waaye euh, dinañu amal ab l'enquête kon ubbi ko ci xool mbir yi daal ba mu kon daal di leer loole nag cib lël la woon lël boo xamante ni dañ ko defoon ngir renforcer capacité yi mën-mën yi ci wàllu noo xamante ni danañu ko def daal baax ak yelleefu doomu aadama saa su ne ñuy sàmm moom pafara ñu ngi jafara ba mu nekk bu njëkk ministre bu yor wàllu yoon ci réew mi di wax ci mbiru Khalifa Sall Ismaïla Madior Fall di dalal xel yi ne àq ak yelleef bu maire bu Dakar dinañ ko respecté. état Sénégal euh, mënul bañ a respecté droits humains droits humains Khalifa Sall parce que Khalifa Sall citoyen la bu am ay droit su ko état bi waree topp euh, su ko état bi waree euh, war a def enquête yi liñ koy tuumal su ko enquête su ko état bi waree jugé loolu yëpp dañ koy def. dans le cadre du respect de l'état de droit texte yi nga xamante ni état de droit euh, ci lay fonctionner dañ koy respecter donc euh, amul euh, xel ñaar ci respecter droit de l'homme ou droit wu humain wu citoyen Khalifa Sall. ministre garde des Sceaux ne yoon rek la ñuy doxal fii ci dëkk bi rawatina ñi nga xam ne nag ñoo dugal seen loxo ci wàllu ordre de mise en liberté provisoire di ay bàyyi négandiku bi nga xam ne jamono ji moo yëngal wàllu justice. Sénégal dañu tàmm di évoquer loo xamante ni ñu ngi ci enquête. te enquête xamagul xew enquête bi moom mooy révélé après ñu def instruction jox ko juge bi juge bi su juge bi demee nag ba jugé ci la ñu muy wax ne ñooñu ñu jàpp liñ leen di tuumaal dëgg la waaye pour l'instant dañuy respect dañu war respecter li ñuy wax présomption d'innocence justice day fonctionner yenn saa yi mu am ay dysfonctionnement mais dysfonctionnement yi lu ci système bi dafa nekk dysfonctionnement boo xam na ay individu la ay nit lañu moo tax loolu ngay wax noonu euh, dëgg la moo tax bi mu amee Euh, def nañu commencé nañu def enquête bi arrêté nit ñi nga xamante ni dañu yaakaar ne ñoom ñoo ci impliqué donc enquête mu ngi dem en cours dinañu leen jugé te suñ leen jugé juge yi dinañu xool li ñu wax noonu lan moo ci nekk dëgg kan moo ci impliqué suñu waree appliqué loi bi ñu appliqué loi bi. ministre bu bees bu am wàllu yoon du amani dalandi ndax nag dossier yu tàng yëpp ñu ngi ci kanamam. ca ndaje moomu Seydi Gassama Amnesty International ma nga fa jàpp na ni gaañu dañu war a gën a dugal seen loxo euh, ci euh, mbir yi wàllu ak yelleef ba daal mën a taxawu askan wi li nga xamante ni euh, moom mooy doon seen yitte xayma nañ fa tolluwaayu kon ak yelleef yooyu ndax ñu ngi koy respecté Sénégal def ci nee nañu ay jéego waaye am na lu ci desandi ci micro Pafara ñu ngi lañ koy teewloo. droits humains au Sénégal euh, euh, soo seetee réew yi ñu wóor mun naa wax ne euh, situation Sénégal situation bu baax la waaye soo ko comparé ak réew réew ñu mag yi réew démocratie ñu mag yi mun naa wax ne ba léegi am na ay jafe-jafe jafe yooyu nag du rek wàllum dox ñaxtu waaye soo seetee mbirum respecter loi ci biir réew mi am na ay problème ndax loi ci biir réew état moo ko war a njëkk respecté malheureusement li ñu gis fan yi muy kaaw Yawou Sely muy kaaw euh, Kémi Seba et cetera kaw yooyu yëpp état bi dafa respecté woon ay loi yoo xam ne moom moon ñoom ñoo nekk ci biir réew mi te su dee état dafa commencé di jalgati ay loi di bañ a respecté ay loi loolu anarchie lay andi fitna lay andi moo tax pour que droits humains mun a dox ci biir Sénégal il faut que sàmm n'est-ce pas loi yi nga xam ne ñoo fi nekk te loi yooyu di aar ak ak yelleef doomu aadama ci mbir yeewu selim yooyu nga xamante ne nag doon na ko junj am dañu diggante ministre de l'éducation ak euh, waajuru ya fa nekkee ngir wut ay saafara ba l'école boobee bañ a tëj joxante nañu ayu bés ñu fa tàmbaliwaat euh, njàng mi ministre bi ci talaata ji war a gis ak ba euh, la ñu doon waxtaanee kon ak ña mu doon dajeel démb ñu xool ndax loolee ba tey ji dana wéy ci ñëfete ci administration ba nettali Kabib Faye Marga. mbiccoog mbaalo gi ci tëj école bi di Yawu Selim mi ngi gën di jaaba jonge ba tere sax nelaw ñenn ci wayjuru ndongo yi ngir ñu wut ci ay pexe te ndongo yi mën a delluwaat ca classe ga wayjuru ndongo yi soob seen loxo ngir gunge gouvernement bi ci yoon boobee. bi ñu waxee ñu déglu leen xam gis seeni seeni mébét seeni yaakaar ak euh, seeni tiit. ci mbir mi ni muy demee Yavuz Selim ñu tontu leen ci laaj yu ñu bëggoon a laaj yépp ci mbirum situation Yavuz Selim ba pare wax leen ne li nga xam ne moo soxal gouvernement bi mooy xale yi continuer di jàng jàng bu rafet ni ñu ko daan defee et ñun ñépp lu ñu war a def mooy que. école bi nga xam ne ñoom bëgg nañ ko ba yóbbu fa doom école boobu ñu seet na lañ koy continuer. jëwriñ gu ñu denk njàng mi fii ci mbir réew mi fas yéene janoog administration bu Yavuz Selim ngir xool ana yan pexe la ñuy jël. dogalu ndëgëndiku mooy te loolu dafa méngoo ak sarti yi yore établissement privé su blocage amee nguur gi mën na jël def administration provisoire. muy jëlu ndëgëndiku tekkiwul ne nguur gi mooy moom école yi déedéet dafay tekki ne nguur gi dafay yóbbu école yi ci beneen anam boo xam ne bii ñi ko séq ñëpp danañ ci d'accord te mu nekk luy wéy te anam boobu mën naa nekk waajur yi ñoom parents d'élèves ci seen biir organiser wu xëj na pour continuer école bi dina tase ak administration wu yow sëriñ ni ma mënee wax xam nga solution bi du benn pàcc rek moo koy jël ñun am nañu xalaat bi xalaat boobu il faut que ñu bokk ko ak ñi nga xam ne aussi dañoo am cër ci mbir mi ndax seet ndax d'accord nañ ci suñ ci d'accordee nan lañ koy demee. yow Selim jamono ji nekk yow Selim SA gannaaw bañ leen dàkkee ca l'école boobee ñoom ndongo yi personnel administratif yi ak wéyjuru ndongo yi xamatuñu ana fan rek la ñuy jëm seeni ëllëgi doom mi ngi ci loxoy gouvernement bu senegal ngoo ëllëgu xale yi ci loxo gouvernement bi Abdoulaye Fane fàttali ni mooy président union nationale des parents d'élèves et étudiants bu Sénégal gan gi ci xibaaru dëgg bëccëg bi euh, monsieur Fane gannaaw ba ma la nuyuwaatee administration provisoire ci coowal Yavuz Selim mel ni loolu la ñu tegandi ngir euh, régler situation bi saafara la jàpp nga ni pour euh, régler tey ji coow li foofu. Adja Ngoné mbir mi dafa doy waar parce dañuy fàttaliku rek ne comme ni ko wolof yi waxee def na ay weer mais kenn fayu ko ndaxte ba mbir mi commencé ba mu tàmbalee ñun ñi sax ñun kuréelu waajur ndongo yi du INAPES ak yeneen organisation euh, kuréelu waajur ndongo yi wooy Yavuz Selim invité woon nañu ci benn point de presse ba ñu waxtaan ci parce que dañ jàppe ne ñun dañoo yilif ñëpp dañu di waajur ndongo yi ñëpp même bu dee public bi si la ñuy gën a yëngatu ci privé bi aussi am nañ ci wàll doy na waar ci réew mi parce que mën nañu comprendre comprendre lu toll ni état depuis presque ay weeri weeri weer ñuy bàyyi mbir mi ba fi mu ne nii comme c'est ni ko journaliste bi waxee léegi mbiicoo ak mbaaloo moom moo am mhm. am ko indi ko te loolu véritablement grandirulul état bi grandirul ñu et aussi taxul aussi wéy juru ndongo yi nga xam ne yi dañoo def ay sacrifice jël seeni i doom dal leen fay dugal euh, vrai véritablement tiital nañ leen parce que dañu réer a mbir ne euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo am kàttan rek ci wàllu am-am ñoom ñoo fay di fa dugal seen i doom mais xam nañu ne am na ay wéy wéyjur yoo xam ne yi dañu def sacrifice bàyyi seen lépp dal jël seen doom dal ko fay dugal pour mu am véritablement euh, succès seen i doom. pour yow waroon nañ mën a régler situation bi avant la rentrée parce que euh, coow li du du du ji lañ ko commencé. coow li du tey yàgg na lool lii ñuy wax nag defe naa ne bu fekkoon ne wax nañ ko njëlbeen ga. maanaam ñu dal di dal di sos kuréelu nëgësndiku maanaam administration provisoire nga xam ne wéyjur dong yi dinañ ci nekk ña nga xam ne ñoom ñoo ngànk administration école bi ak gouvernement bi à travers le ministère de l'éducation ak yeneen personnes ressources yoo xam ne yii am nañu yaakaar ne seen crédibilité may na leen ñu mën a bokk ci kuréel boobu defe naa ne tey kuréel boobu bu ñu ko mettroon en place ba ñu liggéey defe naa ne dinañ toll foo xam ne lii Euh, lii dina réglé wu. est-ce que provisoire ni mu ko waxee euh, moom jëwriñ ji ci boppam euh, jëlub négandiku ndax lii dina ko dina dina saafara coow li est-ce que dina dalal xel parce que à tout moment mbir mi mën na jugaat mën nañu ko woon a réglé wala mbirum négandiku bi provisoire boobu est-ce que ça ne xam nga provisoire bi moom moo mën a réglé situation bi parce que defe naa ne juróom-ñeenti fan ci weeru octobre bi la école di ubbi. Mhm. ba tax na ñoom benn ayu bés rek moom la ñu am boo xam ne bi dina leen mën a permettre comme ni ko ministre bi waxee. Euh, gisee naag euh, wéyjur ndongo yi dina gisee ak administration scolaire Yawou Silim. ñu ngi ci ndaje waaw waaw ñu ngi ci ndaje mi. Mhm. xat na xataay boo xam ne bi bu fekkoon dañu nar a toog c' boole ci aussi mbir mi ngànk dem na ba dugg ci justice. ce qui veut dire dem na ba doon comme ni ko tubaab di waxee méli c' est un méli mélo mhm. juridico euh, administratif. ba tax na loolu ak yéexaay bi loolu rek moom moo mën a doon loo xam ne bu ñu ko mettre en place dina mën a permettre ñoom ñu dal di liggéey waaye nag li ñuy ñaan moom mooy. li ñuy wax provisoire bi bañ a doon permanent ba tax na daal war nañu fexe ba parce que ñun li ñu intéressé du ñoom seen mbir yooyu parce que loolu diggante ñaari réew la mais li ñu intéressé mooy jur ndongo yi am dal goo xam ne gi seen i doom ak effort yi ñuy consentir pour que ñu dal di mën a am njàng mu am solo ñu dal di mën a jàng dans les conditions yi nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom la ñu yaakaar. surtout que fleuron la ci mais diggante ñaari réew dañuy wax ne xëy na diggante ñaari réew euh, askan wi nga xamante ni xale yi nekk fii au delà de xëy na yenn yenn considération yooyu. waaw Adja Ngoné yow xam nga ñu bari xam nañ ne comme ni ko tubaab yi doon waxee defe naa moo ko doon wax les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts réew moo gis am na ay xarit amuñuy xarit mais ay intérêt lañ am parce que loolu moom mooy indi seen lëkkaloo buñ ko seetee ñun du yegg foofu parce que xam nañ ne Turquie am na lu bari loo xam ne li ci wàllu investissement def nga ci réew bi nañu nag xóotal mbir moomu. Mhm. waaye bu dul loolu sax aussi nañu bàyyi xel ne aussi ñaata école ñoom ñoo nekk ci Sénégal fii ba Ziguinchor jàpp Saint-Louis Kaolack ak feneen ak feneen ba tax na aussi ñii nga xam ne ñii ay victimes innocentes la mën nañ leen a sacrifier ba ëllëg ak si biir te ñooñu ñoom ñoo war a mën a ngànk réew mi. donc euh, véritablement même bu état bi amoon na ay intérêt am na yenn yoo xam ne en tant que responsable ministère bi ak gouvernement bi dañ koy jël dépasser yenn considération yi nga xam ne peut-être mën na indi ay euh, problème ci école bi waaye nag nañu bàyyi xel ne ñii nga xam ne ñii am nañu seen i droit te defe naa ne constitution bi lu leer la wax droit à l'éducation dafa am loo xam ne lii ci charte constitution bi la nekk daal. mais ci euh, wàllu rentrée bi démb rek ñu ngi fi euh, dalal Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS. Mhm. école ubbeegul sax ñu ngi dànkaafu ni danañu déposer préavis de grève yeneen syndicat it na ma sóobuwaat ci at mi ak ay euh, ñaxtu nee nañ at mi daloon na xëy na mënoon nañoo profité la yenn situation yi gis nañ ni foofu rek diggante bi dafa am ceetaan ba xëy na bii nar a tàmbali ci xeeti jafe-jafe yooyu. xam nga boo ko seetee fan yi paase la ñu jóge Saly. def nañ fa daanaka presque ab semaine di waxtaan ak syndicats yi partenaire sociaux yi ak ministère de l' éducation loolu ñu woowee concertation partenariale jóge ca aussi dal waa au conseil du dialogue social dal di woote pour ñu jéema seet nan la ñuy dëgëralee euh, li nga xam ne lii ci la ñu wékku ci la tënku mooy consolidation des accords waxtaan nañ ci te amoon nañu yaakaar ne wax dëgg yàlla ba ñu fa jógee mm-hmm. mbir mi dana war a mën a tane. peut-être du du mel na na daaw te moom la ñuy ñaan mu dal di mel ni daaw parce que daaw daanaka grève amul mais ba ñu fa jógee am nañ ci yaakaar bi ñuy ñibbisee nag. mais foofu waxtaanee nga fa li na waral coow li mu di ci wàllu logement waxtaanee nañ ko fa wala bokku ca woon. xam nga xam nga euh, yooyu ay négociation yoo xam ne yi entre gouvernement bi la. parce que bu ñu nee euh, kii rek souvent day renvoyer ministère de l'éducation waaye li ngànk mbir mi yëpp am na ay ministères yoo xam ne yi ñoom ci bokk ci lañ bokk lu mel ni ministère de la fonction publique. parce que documents yi këyit yi nga xam ni ñoom ñooy tax jàngalekat yi am seeni i euh, këyit ak mm-hmm. foofu lay jaare ministère des finances mooy fay ba tax na ab paquet la daal mm-hmm. mais nag ministère de l'éducation moom la ñuy porter parce que c'est normal parce que personnel bi ci ñoom la relevé ce qui veut dire que euh, ba ñu fa demee du woon di discuter euh, ci kii yooyu waaw ci mm-hmm. point yooyu mais am na yoo xam ne d'accord nañ ci ba def def benn déclaration waaye nag préavis de grève yi ñoom ñu ngi seen rôle syndicat yi parce que seen loolu moom mooy seen moom mooy li nga xam ne loolu la war a def waaye nag am na nañu yaakaar ne préavis boo ko déposé alerte la maanaam da ngay signaler ne fii que euh, maanaam fanweeri fan yi jotagul. man mm-hmm. nañu mën nañu waxtaan. donc préavis bu ñu ko déposé war na mën a permettre gouvernement bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk négociation yi ñu dal di sulli ubbi ay négociation te dem nañ yaakaar ne fii ak 30 jours je am nañ yaakaar ne peut-être euh, dinañ war a mën a toog. question wu indemnité yi nag moom c'est un peu difficile parce que boo ko seetee ci xayma rek moom laay wax toujours enseignants yi euh, ci tubaab ils sont victimes de leur nombre parce que boo jëlee après soixante-dix mille enseignants nga dal koy multiplier par dix dix mille rek déjà la mu lay won ci xaalis waaye teewul nag bu fekkee dañ nekk seen droit c'est gouvernement bi war na mën a jéema seet moratoire bu mën a defee ba di leen ko fay ndànk-ndànk nga xam ne véritablement Euh, année bi daal ren comme ni mu amee yoon daaw dina war a mën a apaisement. mais de façon générale l'école mi ngi waaj a ubbi euh, xale yi fas yéene demaat euh, boo doon xayma njàng mi effort yi ñu ci def ak jafe-jafe yi bokk na ci loo xamante ne ñu ngi koy gën a junj abri provisoire yi seen lim bu sakkan xëy na ñenn ñi di jàng encore dans des conditions yoo xamante ni gënalu leen gënalul seen i waajur gënalul seen i enseignants ponk boobu est-ce que yéen yéen ngi ciy wax ak gi di ci def ay jéego quand même pour génne yi ci ci conditions yooyu. abri provisoire yooyu ñuy wax te ñu koy tudde mbaar ci wolof yaakaar naa ne programme bi euh, gouvernement bi am na benn programme boo xam ne mu ngi koy développé mais nag ñun moom defe naa nañ mun li ñuy jàpp toujours moom mooy ca jëf-jëf am nañu programme bu ñuy développé am na lenn loo xam ne lii ñu ngi koy commencé di ko defar te ñoom ci seen paquet bi niñ ko dina dinañu defar ay classes ba pare dal di ko équipe programme baa ngi commencé nekk en cours euh, loolu lañ ci mën a wax mais nañu bàyyi xel ne aussi abri provisoire fu mu amee ñaare wéyjur ndongo yi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko sos parce que ñun dañu yaakaar ne am abri provisoire xale yi dal di fay nekk di jàng moom moo gën naan dañuy toog di ñax di xaar école boo xam ne mais buñ ko sosee ça veut dire que xëy na dañu gisul école yu jàkk yoo xamante ni fa la ñu dugal seen doom donc ñu def ay euh, sàqet ak ay kiringting ku sañoon sa doom dugg ci classe yoo xamante ne ay mur ak euh, sécurité mi ngi fa ñun xam nañ ne lu mat juróom benn junni abri provisoire amoon na fi ci réew mi te nag politique de résorption bi comme ni ñu ko waxee mu ngi commencé am na yoo xam ne teg nañ ci bët am na ay modèles yoo xam ne aussi présenté nañ ko mais comme lañ ko waxee rek weddi moom gis bokk ci ñun fa ñu leen di xaare gouvernement bi moom mooy ñu dal di loo xam ne lii defar nañ ko dal di ciy teg ñu dal di ci mën a teg suñu bët bu boobaa je crois que dinañ war a mën a xalaat ne avant ay avancé am na mais li ñu mën a wax rek ñun wéyjur ndongo yi di loolu euh, gis nañu ne am na programme boo xam ne bi dinañ ko def ak seen i te am nañu yaakaar ne dina war a mën a permettre véritablement bi daal moo des ak euh, yeexaay bi waaw loolu daal ñu ngi ciy xaar mhm. euh, atum ren nan ngeen ko bëggee ci wàllu xëy na dal la ñëpp di ñaan lan nga yaakaar yéen jéego bu ñu ko defee xëy na mbir yi dana sotti ak fu ñu war a gën a baral loxo yi quand ba ba mbir yi bari na lu ñuy junj ci njàng mi jafe-jafe ci wàllu niveau yenn saay qualité yeneen yi façon fan nga jàpp ne tey ji mooy priorité quand même pour gën a joyante yëf yi priorité bi mooy apaisement wu espace scolaire bi maanaam grève bañ a am te am nañ ci yaakaar parce que daaw bu amee peut-être que ministère bi def na effort si comme politique communicationnelle am. Mm-hmm. parce que def na de telle sorte que weer wu jot premier mardi weer wu jot dañuy doon woo kuréelu kii yëpp syndicat yi société civile ak gouvernement ak ministre bi ak ay directeurs yi dal di toog saafara yenn yi. Mm-hmm. loolu je crois que point positif la mais enseignement euh, apprentissage yi pour mu jaar na mu waree daal. yaakaar naa ne bu fekkee ne dalal nañu xel ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy syndicaliste enseignants yi dalal nañ leen xel par rapport ak revendication yi nga xam ne yi peut-être ñu ngi koy euh, def même bu fekkee ne lépp mënul euh, euh, maanaam saafara mu am ay début de solution yoo xam ne dina mën a dalal seen xam xel ñu am yaakaar ne peut-être fekk ak diir dina mën a régler de manière définitive mm-hmm. parce que aussi seen rôle moom laa doon wax léegi les syndicats sont dans leur rôle te à la chaque fois bu ñu réglé benn problème dina am yeneen yoo xam ne dina desandi mais nag ci côté gouvernement bi dañu leen di woo que ministère de l'éducation mu dal di nekk kuréel boo xam ne bi warul porté rek far fardoowu euh, problème gouvernement bi yépp mm. te aussi ku nekk ci sawal muy ministère de l'enseignement de la formation professionnelle di ministère de finances ministère aussi de la fonction publique ñuy mën a toog te bu chaque fois bu amee ay jotaay aussi ñu mën a envoyé ministre yi ñoom seen bopp ñu mën a toog ñoom ñet ñu dal di toog parce que dafay xaw dafay yenn saa yi nga envoyé ñoo xam ne yi peut yenn décision yi à un certain niveau ko mën a jël njeexale très rapidement monsieur Abdoulaye Fane ci étudiants yi euh, parents euh, université kon euh, ñi ngi xaar ñenn ñuy fex mbir rétention de notes ak yooyu foofu lan mooy situation bi actuellement bi carrément ba muy tàmbaleeg ba muy jeex mbiri rétention yooyu situation bi lu ngeen ci taxawee foofu taxaw nañ si parce que secrétaire général bu bees bi tudd Malick Fall euh, jot nañu daje moom ci koor gi passé waxtaan ak ñoom parce que véritablement ñoom dañ leen di gërëm di leen san sant ay responsable lañu ñëpp xam nañ ne enseignant wu supérieur yi dañuy di ñoo xam ne ñi seen statut daf leen war a may ñu dal di mën a nekk dans di condition yu leen mën a permettre ñu mën a dal di def seen i jàngale na mu ware am na nag loo xam ne lii dañ ko doon euh, maanaam di ñaxtu. defe naa ne ci wàllu ay indemnité la ak aussi bés bu ñu retraité. Mhm. ñu mën a am bet loo xam ne lii dina la war a mën a mel loo xam dañ koy dañ ciy téye dans la dignité ñu mën a dem à la retraite je crois que point yooyu posé woon na yàgg nañu ko posé mais am nañ ñee yaakaar ne ñun toutes les façons ministre bi dinañu recevoir fan yi incha allah euh, confirmé nañu ko bés bu fekkee ne recevoir nañu ñu dal di koy posé. parce que aussi mais arme rétention de not yi xale yi xam nga dañuy jàpp ne finalement duñu xam fan la ñu féete yooyu yëpp benn situation la leen di dugal boo xamante ni tam day day xaw a jafe ci ñoom. ñu jàpp ne rek déclaration la am ñu yaakaar ne duñu yegg ba foofu mais nag xam nga bu fekkee ne pose nañu problème boobu rek mooy li ma wax léegi sànq rek wàllu alerte la. bu ko defee loolu bu fekkee ne posé nañ ko na gouvernement bi mini à travers lui de l' enseignement supérieur euh, monsieur Mary Teuw Niane di leen woo ak partenaires sociaux dal di mën a jéem a seet Euh, bu fekkee ne mën nañu trouver de solution par rapport à ça te am nañu yaakaar ne bu ñu toogee nañu trouver solution. président ñu lay gërëm euh, yaa jiite ko union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal monsieur Abdoulaye Fane moo doon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi jaajëfal ko euh, ci teewaay bi disponibilité bi. jërëjëf soxna xibaar yi kon daal di dem ba ca Koungheul foofee askan wa ñoom mer ba futt la def jàpp ni dañu leen a fàtte ndax ba def nañ ko fa ci euh, jéego bari na lu manqué ca diwaan ba ba waral askan ya génn ca seen kër wàcc si ci mbedd mi Ibrahima Thiamé mag ndaw góor ak i jigéen yi ñëpp ànd koon wàcc ci mbedd mi pour def doxum ñaxtu pour ñaawlu niñ nekkoon état bi defarul dara seeni département bi mbootaay bi ñu duppeekoon taxawu askanu Koungheul ñoom ñoo sooke mobilisation bi suñu wàccee ci mbedd mi nag du dara lu dul dañuy taxaw seetlu bi nga xam ne nii Koungheul am na département ak léegi toll na ci fukki at mais dañoo gis ne département bi amul ay jéego yu mu dox Koungheul nag bokk na ci ñeent département yi ngànk diwaanu Kaffrine depuis 2006 la teg bët ne état bi defaral na ko seen i département service yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Koungheul yëpp ci ay kër yu ñu luye la te tey buñ koy xalaat ci xaalisu réew mi day nekk ci ay million yu bëri tey pourquoi pas ñu jël xaalis boobu noonu tabax ko mu Koungheul am jëmm bala dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo wër Koungheul ñu am jëm ba nga xam ne ni tey autorité yooyu noonu dinañ mën a jege askan bi mën a mën a oyu ci laaj yi nga xam ne ni moom leen askan bi di laaj ñu ne meeku ne itam département bi yëpp benn liis rek moo fi nekk amul trésor public amul commissariat amul itam ay yoon yu baax tey mënuñu wax développement te yoon amul te tey kenn mënul développer Koungheul te Koungheul amul yoon tey Koungheul benn yoon bu baax kese la am mooy rn bi mooy route nationale bi nga xam ne ni moom moo traversé Koungheul vers Tambacounda boo xoolee communes yi nga xam ne ñoom ñoo wër Koungheul amul benn yoon bu baax boo xam ne ni moom moo fay dem tey boo xoolee trésor bi nga xam ne moom moo nekk au niveau de Kaffrine trésor Kaffrine Koungheul moom moo koy dundal parce que Koungheul moo ëpp ay collectivités locales au niveau de gis ne pour ñu mën a jot ci trésor boobu noonu il nous faut des kilomètres dañuy jaral ñu déplacer ba Kaffrine te tey dafa war Koungheul am trésor boo xam ne ni ñu bëggee ay soxla yoo xam ne dañuy waaxu ndànk dem fa lijjanti suñu soxla te beneen problème du am tey boo xoolee département Koungheul bi yëpp benn lycée la am dans tout le département benn lycée kese moom moo fi nekk te bu ñu xoolee y a neuf collectivités locales yoo xam ne ni ñoom ñoo ñoo ëmb Koungheul ginnaaw nag seen marché bi ñu jeexalee préfecture ba ndaw yi daal dinañ jéebal i mémorandum ki fi toogal nguur benn bu accident sànq ca boori gendarmerie bu Mbaaw koo xamante ni da doon euh, dawal euh, moto moom la benn woto dal ci kawam ba mu daal di ñakk bakkanam ma euh, ca la nga ni Asmalik Diop toogal ñu ca banlieue ba génn nañu ko accident boobu mi ngi am sànq bi midi kon di jot sapeur pompier ak gendarmerie yegg si woon fa mu di kon jafe-jafe encore ci yoon wi weneen yoon woo xamante ni dalul xel chauffeur taxi ya nekkee kon ca taxi garage. Fass jëm ca Morolan di jël yoonu ko euh, Morolan nooto guy jama Tiwaawoon nee nañu euh, voie de contournement bu Thiès daal dalatul seenum xel bëgg nañu nag euh, nguur gi indi ci ay safara reportage Cheikh Anta tali tournement bi wër Thiès ñu fay nemmeeku ay accident yu bëri rawatina xàll wi jóge Thiès dem Morolan Nottoguy Jama ba Tiwaawoon ñu gis ne accident yi fay faral di am ay moto Jakarta ak ñu yor ay oto particulier ba ñu ci bëri sax dañ ciy ñàkk seen bakkan chauffeur yi nga xam ne miin nañ fi xam nañu yoon wi mais ay étranger yi nga xam ne nii miinuñu fi ñoom dañu fi ñëw ak allure boo xam ne nii soog bu bari boo ko dee xool oto bi jógee eh, dakaar jëm ndar ci sorte bi parce que du fi xam loolu mooy waral ñuy accident yu bari ci loolu moo koy provoqué gaaw ca gi am na fi ay sog yu baax xaw a sakkan am na fi sogu jakarta yoo xam ne it yaatu na ñoom sax ñàkk kaaraange ci xàll wooyu moom moo tax chauffeur si jóg takku doon dindi lépp loo xamante ne ñax la ci wet gi ndaxte sax nee nañ chauffeur su bëri bu oto di ñëw duñ ko mën a gis moo waral nag at mu ne chauffeur yi ñooy dajaloo bu heure bi jotee ñax mi jóg ñu dajaloo ñëw fii dagg ñax mi àndaat lépp ki defar rek lañ ko dugloo regroupement yi chauffeur yëpp ñu xool ci lu mel nii kenn ku nekk wàllu wa nga féete soo fa gisee lëndëm lëndëm bu mel nii nga jóg taxaw jéem koo defar parce que nag nun lu waay def rek nun la ko defal nun chauffeur yi chauffeur yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñu ngi nag sàkku ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bopp moo mel yi rawatina maire Thiès noor mu taxawal fa ay panneaux de signalisation ngir gën a aar chauffeur si nga xamante ne dañuy jaar ci xàll woowee ay information ci wàllu soy soriantol euh, njur ndaw ñi amuñu ko yooyee xibaar lu ca bari yenn saay yañ leen di wax dafay nekk loo xamante ni euh, dafay wute ak li am euh, ña ko xam ne nag moo di benn organisation ak yeneen juróom-ñett yu ñu lëngool fële kon ca boori Richard Toll loola tax nag taxaw nañu ngir indi ci ay coppite fexe ba ndaw ñi xam dëgg lan moo xew ngir bu ëllëgee ñu mën a moytu yenn comportement yi seenu jop Habib Seck dëkkaan yi li ñu nemeeku mooy ndaw yi xibaar yéen war jot ci wàllug santé de la reproduction duñ ko am loolu nag moo tax Marie Stopes International ak juróom-ñett ci ay partenaire am dem ci Richard Toll taxawal fa benn bërëb centre bii lay mëbëtam mooy jindi xale yi ndax te dañoo gis ni xibaar yéen ñu war a jot léegi saa nañ koy jotee jaarul ci yoon. tey xam nañu ne ndaw ñi ñu ci bare amuñu information bi nga xamante ne mooy information bu baax. si wàllum euh, santé de la reproduction ak planning donc espace bi dañ ko ubbi pour bépp bépp jeune boo xamante ne am nga ay question am nga benn soxla am nga benn feebar wala nga mën a ñëw trouver fii ñoo xamante ne dinañ la may information bi nga xamante ne moom nga soxla. programme bi nag USAID da cee dugal loxoom ngir ci wàllu wér-gu-yaram atum 2016 ba 2021 ñu gën ko daal di soqali. prestation de service yi am ci centre de santé yi ak. Euh, Euh, poste de santé yi ak hôpitaux yi dafa amoon gàllankoor par rapport à jigéen yi bu ñu ñëwee ak xale yi les jeunes là bu ñu ñëwee duñ doon am ay jafe-jafe. médecin chef bu district sanitaire bi nii daañ ci gën a dugal seen i loxo ngir xale yi gën a mën a xam fan la ñuy teg seen i tànk. cinquième espace jeune bi ñuy créé au Sénégal ñu def ko fii Richard Toll donc loolu ndam la mais aussi ñoo ngi xaar si ñun aussi ñu pouvoir ñu mën a utiliser euh, service yi mën a utiliser service bi district sanitaire Richard Toll moom duñ duñu xar suñu tànk tubéy ci jàppale structure bi parce que aussi ci suñu zone de responsable ci la nekk euh, nañ ko jàppale ci fànn yëpp. centre bii ñu amal ci wàllu dina tax xale yi mën a xam seen i feebar yi nga xamante ni am nañ ko rawatina ci wàllu IST mantim di def ay dépistage jëm ci wàllu cancer du col de l'utérus ak ci planification familiale. cancer yi ci euh, boppam booy xool la ñu yokk fii ci réewum Sénégal euh, loole nag ñu profité ci octobre rose bi euh, xool lan moo waral xeex bi ñuy xeex jéego yi ñu ci bëgg amaguñu ko bari na lu koy gàllankoor politique nationale ci wàllu prévention foofee dafa des di fàggu ci feebar bi rawatina ak dépistage teel a yër ñi nga xamante ni kon am nañu ko wala war nañu ko mën a am ci yeneen ko wàll registre des tumeurs ba tey ji amul ci Sénégal rax ci dolli. jote ci médicament yi jumtukaay yu xarale yoo xamante ni mën nañ cee faj malade yi ponk yooyu yëpp des na ki ne dem gise ci ak docteur Doudou Diouf cancérologue mook Modou Diop ñoo àndoon noonu. feebar la buy làkku tey lore ndànk-ndànk jàngoro cancer yi nag xayma ko ci Sénégal jafe lool la ñu ne nag faw ñu daal di tëral politique boo xamante ne nii dafa soxal mbirum fegu. maanaam au Sénégal. gaa am nañ benn plan benn plan national boo xam ne bind nañ ko mais mooy suñu deuxième plan bi nga xam ne bind nañ ko mu ngi ministère de la santé mais moyens yi ci war pour plan bi mën a fonctionner ba ñu ne fii lañ toll ci suñu dëkk fii lañ jëm bu ci année yi di ñëw fii ak 5 ans fii ak fii lañ bëgg a toll ci wàññi nit ñi nga xam ne cancer bi da leen di lor loolu moyens yooyu lañ ci deful moo tax bu ñu nekkee ci octobre bii nit ñi wax ju wax wax bi bëri yëpp nit ñi yëpp ñëw mais bu weesoo loolu événement boobu rek nit ñi presque duñ ci waxati malade yi dañ leen di bàyyi ak seen détresse bàyyi leen ak seen i jafe-jafe. bu weesoo jafe-jafe yi ñu bari ci aji tawat gi mënuñoo jotee ci pàcc garab naka noonu. docteur yi bëriwul ñuy faj cancer fii Sénégal dañoo néew. benn institut rek moo fi nekk di institut de référence pour Sénégal yëpp ak yenn pays africains yi am nañ yeneen gox yu koy faj fii Sénégal mais lu ndaw a ndaw la ñuy faj ci nombre de malades yi donc loolu mooy waral boo soxlaa rendez-vous mu sori te bu nekkee par exemple chimio bi nga xam ne ñaar fukki fan ak benn ñu ne da ngaa war a jënd benn ordonnance yenn saa yi nit ki dina ko jënd benn yoon mais ñaareel bi nga xam ne ñaar fukki fan ak benn la ci war a teg day am jafe-jafe pour jënd ko. beneen jafe-jafe bi ñuy jànkonteel muy paj moomee ñu duppee radiothérapie. ñu waroon fajoo radiothérapie nañ ko bëggee woon mënuñu ko am ñenn ñi bi wut na ay ba yóbbu leen Maroc wante ña demul ñoo ëpp fuuf ñu mën a dem ñi nga xam ne gouvernement bi yóbbu na leen mu nekkoon jafe-jafe bu rëy boo xam ne am nañ ko te di continuer di ko am te mënuñu si dara fii ak décembre parce que amul benn pexe bu loo xam ne da nga koy installé ci benn fan wala ci ñaari fan. borom xam-xam yi nag di sàkku itam. lu jën ci chimiothérapie ñu daal di koy rek yombal ci Sénégal ba aji tawat gi dootuñu ca fay dërëm ni ñu koy seetloo ci yenn réew yi nga xamante ne nii jege nañu Sénégal. vraiment mooy suñu plaidoyer ñun li ñu bëggoon mooy ñu egg si parce que Mali ñoom li ñu def ma am ko ñun bu ñu ko defoon yaakaar naa war nañ ci ñun egg parce que ñun ëpp ñu koom-koom euh, Mali. la ñu def mooy rek dañuy jëloon budget bi nga doon xam ne moom la ñu jël pour jëndi yenn garab yi. ñu calculer xool seen besoin annuel mais ñu def ko ci garab yooyu bu ko defee ñi nga xam ne amuñu seen ginnaaw jot seen loxo jotul seen ginnaaw oo moins mun a bénéficier wu ci garab bi. jafe na itam ñu wax ni ñi amee jàngore cancer seen lim nu mu toll ci Sénégal li ko waral ba nëga réew mi amul li ñu duppee registre des tumeurs. Fatou Kiné Deme situation diplomatique diggante Sénégal ak Qatar amul benn jafe-jafe gis-gisu consultant relation internationale Alpha Wali Diallo ndem sax ministre Qatar yi euh, génn nam kaddu yi mu yëkkati yëkkati jàpp na ni loole du euh, jaxase dara diggante ñaari réew yi Cheikh Hassana Fall Modou Diop ministre Qatari gi yore lu jëm ci mbirum bitum réew daf génn doon wax ci lu jëm ci situation diplomatique ci diggante Sénégal ak réewam wax yi mu wax ci boobule entretien jur coow ci sunu réew waaye ci gis-gisu alfa Wali jàlloo génn bi le ministre du andi benn jafe-jafe ci sunu diggante ak waa Qatar. dafa am ay wax yoo xam ne ni waxu diplomatie la. li nga xam ne nii moo dox si diggante. réew yi yaakaar naa du ci Jeune Afrique wala ci feneen lañ koy waxe ñi ngi waxtaan parce que waxtaan boobu moo tax tey jii ba relation yi apaisé wu Sénégal euh, delloowaat ambassadeur bi mu amoon euh, Doha Qatar yi aussi euh, fas yéene fi yónneewaat seen ambassadeur. pata pataaral gu sunu waa nguur def nekk loo xam ne xel mën na koo nangu ci gis-gisam ba léegi. gis nga dafa am ay canaux pour waxtaan. donc euh, yaakaar naa bu ñu koy tontu aussi ce sera par même canal te it fa dëgg dëgg dëgg dëgg euh, ministre des affaires euh, étrangères bu Qatar bi waxul loo xam ne ni dañ koy ñaawlu. Sénégal du ñàkk bari ci renommée diplomatique gu mu am loolu mooy lu ñu sunu consultant en relation internationale bi dénk. diplomatie Sénégal fi mu nekkoon ma nga fa ma nga fa ba léegi xëy na nag kii ce sont des erreurs conjoncturelles. ah du du du du loo xam ne ni Sénégal si loolu lañ ko xamee Sénégal en matière de diplomatie ñu ngi ko mës a xam si retenu jafe-jafe yu amoon ci diggante Qatar ak Arabie Saoudite taxoon ba réewum Sénégal woowaat ambassadeur am bi nekkoon fa fële ca Doha ñu teg ci tuutis waa Sénégal def dellu ginnaaw ngir mën a rafetalaat seen diggante ak réewum Qatar yi jëf joo xam ne kii di Alpha Wali jàll jàpp na ni dafay wane rek ne suñu réew naataangoom yëpp la bëgg yemale ci benn tànk. éliminatoire mondial Russie euh, Sénégal di waajal match am ak euh, Cap Vert obligation de résultat nag la ñu am maanaam euh, gagné ngir mën a qualifié yenn ci joueurs yi blessé ci gis-gisu nga xamante ni moom moo di Roger Mendy ancien international warul mën a lay entraîneur bi loole lépp war na ko mën a sóor ba xam nu muy doxalee ak Cap Vert Salif Diallo ni war nañu wone wone moom taskatu xibaar la beneen xar kanam ndax jamono ji mel na ni Cap Vert ci wàllum xel ñoom la seen boss Euh, gën a dal euh, bu ñu xoolee match yi ñu am ak résultat yi nga xamante ne teg nañu ko ci taabal ji Pape Fara ñi nga Abdoulaye Diallo. Cap Vert ak Sénégal di match bu am solo lool ndax équipe nationale bi amatul droit def benn erreur. naka noonu équipe ba mu dajal ndax ku ci ne da ngaa war a gagné sa match yi nga am yëpp ngir mën a xalaat a qualifié ci coupe du monde Russie 2018. door Cap Vert suñ première journée bi mais boo xoolee ba ñaari parcours équipe yi. Cap-Vert moo gën a ànd ak confiance parce que Cap-Vert dafa dóor dóoraat Afrique du Sud loolu moo tax mu nekk deuxième mu am même nombre de points que Burkina ñun nag depuis suñu match contre cap ba léegi gagné wu ñu éliminatoire coupe du monde est-ce que loolu dina andi stress wala mu en confiance mais Sénégal amatul choix. c'est-à-dire que équipe la boo xam ne waruñu ko xeeb parce que fi mu ne nii ñun ñetti match yoo xam ne dañ ko war a gagné la am. donc suñu problème mooy que naka la ñuy def ba andi problème euh, équipe boobu problème ba gagné ko match la boo xam ni defe na dirigeant yi war nañu gën a waxtaan ak xale yi. war leen dindil pression bu bëri yaa ngi may di kan match football la rek. ak yenn jour yi nga xam ne am nañu gaañu gaañu li nu mel tiitalul ñi nga xam ne ñooy observateurs yi ndax Aliou Cissé xalaatoon na li nu mel bu yàgg soo gisee listam. mais entraîneur bi daal kii na fagaru na ba euh, vingt six joueurs ñaari joueurs yu blessé normalement il est vrai que nañ waxante dëgg nag Ismaïla Sarr profil profiloom dafa raar si équipe bi wante entraîneur bi mu fa ay ay ay yu mag. yoo xam ne mun nañ ko remplacer naam Ismaïla Sarr dafa gaaw mën a football xale la mais bon am na ses équipe ñoo xam ne mun nañu jouer place am. parce que léeg kii dafay manqué que lay ñëw def benn match bu rëy ñu ne mais booy bi fan la nekkoon ba tey peut-être match boobu moo ko motiver pour mu wone boppam mu daal di wone boppam comme mën na suux. donc ñaanuñu ko yàlla euh, ay blessé ci équipe nationale dañ ko war a euh, ci club mën na ne mais ci équipe nationale déet parce que équipe nationale am nga possibilité seeti ñeneen bu doon ci club amato signé amatoo droit signé beneen joueur pour mu ñëw football parce que ñii xamante wuñu jamono ji moom coach bi ñu koy ŋàññ lu bëree bëri te benn match dong la am ci éliminatoire coupe du monde yi fi mu toll nii faaw mu def résultat bu baax. entraîneur c'est pas nga jël say joueurs di leen di ba nga xam ne match bi commencé na. ba nga taxaw war nga xool équipe bële lan la andi benn problème moo la mën a posé bu la posé problème boobu nga gis ko en ce moment ci ngay rectifier. dañuy def euh, dañuy dem jouer contre équipe boo xam ne dafa bëgg si quatre vingt dix minutes wala quatre vingt quinze mu gagné donc loolu mooy gën Sénégal boo defee loolu loolu mooy gën yombal liggéey bi arrangé dina ko comme Cameroun boo xam ne dafa toog këram. équipe nationale bu Sénégal jamono ji mbiram ñu ngi ciy loxoom waaye nag lépp mu ngi jaare seen match bi war a dox seen diggante ak Cap Vert juróom-ñaari fan ci weeru octobre ca Paraya. foofu nag équipe nationale faaw mu am fa résultat bu baax ngir yaakaar gis Russie. Tafara nga dal ci yéen kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coowal yafu selim ma ngay bëgg a mujj ci wasalaam ubbi leen l'observateur Serigne Mbaye Thiam ministre éducation nationale nee na pour le moment dañuy xool nu ñuy tegee ab administration provisoire mu seere école yafu selim yi ñu seppi ci loxob turquien yi mu di association Baskets Égypte mi yore gestion bi ak fondation Marif gi ñu war a jox gestion ñoom ñëpp la ñu ciy génnee ndéegum tega ndéegum fi ab administration provisoire li ko waral lobs nañu Serigne Mbaye Thiam nee na mooy dañuy bañ a salfaañe njàng meek njàngale mi ndax ca na yoo xam ne inscrire nañu seeni doom ba noppi ña ca des seeni doom ba fay leen at mi moom ministre éducation nationale di Serigne Mbaye Thiam yéerekaay bi nañu démb la daje ak délégation association parents d'élèves ya ca Yafou Selim ci teewaayu directeur général administration territoriale bu ministère intérieur les éco nañu état bu Sénégal dafa mel ne ku doyal sëkk ci coowal waxi Yafou Selim moo waral muy seet nu mu ca rocceekoo tey ji ministre éducation nationale mu di Serigne Mbaye Thiam dina daje waat ak ñi seq yëf yi ñu yeggale wi ñu tàmbali woon démb xool nu ñuy def ba génn ci jafe-jafe yi yoon yi nee nañu bu ñu ko wàccul muy fondation Marif di association Baskans Égitime ñoom ñëpp dañu leen di génnee ci doxalinu Yafu Selim bu ko defee ministère éducation taxawal ab administration boo xam ne dañu koy dénk école Yafu Selim yi journal bi tegal ñu ci ne mbir la moo xam ne bu ñu ko teelu te lijjanti dana romb réew mi ndax muy administrateurs yi di parents d'élèves yi di avocats yi ñoom ñëpp ci tànki lawal xeex bi ba ci bitim réew ca la taxaw maanaam xalaat bu baax a baax ci misir bi mu jël jëm ci tëj école Yafu Selim yi Vox Populi nañu ngir génnee Yafu Selim ci li mu nekk fexe ba tàggatimbi gi mu nekk jeex moo waral état bu Sénégal dellu gannaaw as lëf waaye nag la fa woon jugu fa ay takk der yu dul jeex la ñu gis ñoo fees dala école ba élèves ya jàngee ci école Yafu Selim ak ñi liggéey ca l'école ya dem takk dere nga fay fekk dañu lay wàññi Vox Populi nañu parents d'élèves yi gis démb ci école Yafu Selim yi naqaru xol dëgg la ñu àndal enquête dina nañu mbiri école Yafu Selim yi jaay doole pire moo ci am li ñu naan ku man sa morom du tuuma la raison du plus fort moo am ci école ya fu selim yi ne ginnaaw ñaar fukki at yi mu def ci réew mi état bu Sénégal tëj na leen démb élèves yi nekkee jooyu xol parents d'élèves yi maire bay futt école ba jëm ci faatu le quotidien nañu li ñu gis démb ci école ya fu selim yi mësee su ko faa gis kenn musuta xalaat sax gis ko fa ay takk der yu dul jeex ci école ba ñu gaare seeni pick di oto ci buntu ba ne kenn du fa dugg Bassirou Kébé mi président association a jaaxale la si ne kay nañu état bu Sénégal waxi administration provisoire lay wax ci yafu silim ngir sowe at mi ba élèves yi mën a jàngi ci jàmm ak salaam soleil national nañu jàngi ci jàmm ak salaam atum njàng mu amul jenn jalti-jalti bàyyi ñool-ñool wala jafe-jafe mbay gàllankoor loolee le président Macky Sall bëgg démb la ko waxaat ca ndajam levée des couleurs mu di ba ñu màggal raay réew mi ca palais de la république meneen Sall mu yéene kaay xëye moo di Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru le témoignage moo nekk ci moom xamal ñu ne moom Khalifa Sall ma ca kaso ba ña daan dem ca kaso ba doon ko seeti seetlu nañ ni lim bi dafa wàññeeku léegi yéenekaay bi di laaj ndax gaañu ñoo dem ba sonn ci dem beeg jàppalante beeg jaabante bi am ndax ni ñu leen di def mu di taxaw ci parloir ya di wax xalifa yi dégg xalifa di wax ñuy dégg ndax du loolee moo leen découragé ki dul découragé mukk ci mbiri Serigne Saliou Mbacké moom la l'observateur xëy dalal Pape Cheikh Ahmadou Amar ñu gën koo xam ci Cheikh Amar njiital holding Amar ngóob ma ñuy wàcce Xelkom juróom-ñaari fan ci weeru octobre moo waral journaliste yi l'observateur yi xëy ko seeti dar ko moom dar yu bëri bi l'homme affaire bi di Cheikh amaar wax na li mu xalaat ci politique économique bu président Macky Sall jooy yu rëy yi mu fi jooyoon keroog ca kanamu Serigne Cheikh Saliou mu ne li ko taxoon a jooy mooy li ko Serigne bi wax ndax yombul di dégg ab Serigne muy wax ab taalibeem lu ni mel Serigne Cheikh Saliou dem na ba naan ko dina doon ci yow bàyyi doon ci yow ndey dox sa digganteeg Serigne Saliou Mbacké journaliste yi l'observateur yi ne ko dégg nañu fan yële ñu génn kii di Moustapha Cissé Lo mu lay xas ak a ŋàññ ak a jéebaane ka tuumaal looy wax ci loolee Cheikh Amar ne leen ku ma fekk may tontonteeg Moustapha Cissé Lo lu may wax wax waxi Moustapha Cissé Lo taluma ko ñu wax ba tey ci leneen lu nekk ci xët mu njëkk l'Observateur ca Daaru Muxti juróom-benni bayfal ñoo fa jàpp benn waay dóor ko ba mu dee Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy gërëm di ko sant jaajëfal leen yéen ñi doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 20 ci yeneen i xibaar ñaanal leen ngeen yenn jàmm ak programme TFM ba ci kanam tuuti